ñoo organiser benn journée wu don de sang journée boobu nag euh, li ko sabab mooy euh, euh, docteur Yaya Ba bi nga xamante ni moom mooy gérer banque de sang bi daf ñu approché woon nañu ay poche de sang yi nekk disponible amatul poche de sang ci biir loolu ñun tamit ñu xalaat ni que war nañoo mën a def suñu action ñëw taxawu askan wi parce que la li ñuy def noonu joxe ci maye deret taxawu sa bopp la ndax taxawul sa bopp la ndax xamuloo ndëgam sa jabar moo mooy ñëw soxla ko xamuloo ndëgam sa rakk la xamuloo ndëgam sa yow la sax en question donc euh, parce que kuy xool femmes yi accouché yi li ñuy war a soxla Euh, ñun ñi nga xamante ni dañuy am yenn problème anémie yi ñu war leen a renforcer ñi accident yi ñu war leen a dolli deret yooyu yëpp boo leen boole nga am ni que joxe deret sauver une vie la dafa tombe aussi ak juddu association bi xamante ni euh, moom la agent yi nekk SONAGED biir Tamba créé dañu créé benn association ba xamante ni day dox ci lépp lu jëm ci social